xaaj malik si mu jaar ba am si moo jahal a jaaxal adduna yépp ndax si ñëwul takkandeeram a fu wacc mem ñewul dégg na ci lamagnam ak suma nop mon ma doom juruma ken wa yalla jox na ma njaboot mon na yalla jox na ma njaboot nag waaye babacar babacar rek la si ko ak suma nop nu ngi dox jëmloo di caaj maalik maa ngi téye ampul bi di nekk tànkam boo bàyyi fa ña ña may àndal ñëpp ñibbisi moom moom moo may indi ma dem def fa fukki fan ak juróom benn ñibbisi dernier avion laa dem ñëw deuxième duwaañ du ma seet sandarma du ma seet am naar du ma laaj fu ma bëgg a dugg dugg fa lu ma bëgg a def def ko googu góor ànd ak moom yombul xalifa boobu di di Mouhamad Mansour keroog ba ñu génnee ci réew di Xaaj Malik te lu nar a feeñ te yàgg na noo dem mag Babacar Si dafa mën a doom tey daanu feeñ suñ Babacar moo ma ko wax dama tey daanu feeñ ñu dem ba ci bunti réew bi ma jox ka sajaade beeg ampul bi mu summi dallu càmmoñ wi ma for mu summi wu ndajoor bi ma for mun ma taxawal fii ma taxaw fa mu dugg ci réew du Maodo gis nga suñ Babacar ëpp ñëpp ay teggin mësula tujji réew du Maodo te Abdou Rebelle ngeeg caabi suñ Babacar ngeeg caabi te bu ñëwee ci urum bi lay yem ngir ormal Maodo ma dégg muy wax la muy wax dama ci xam Wahai bu ne insha allahu rek ma xam ne mu ngi ma ampul ba joxaat ma sajaada ba ma tegal kadal dàll ya billahi billahi billahi Lalu kenn du ko ci rajo ci sal waa caawan di la dégg waa caawan ñoo la gën a xam ne lii waa dëgg la ñoom ñoo ko nuy ñëw di génn rek góor gi Moussa Niang génn ca bopp jumaa ja sëwye ba mun ma dafa mel ne am na kuy ñëw ndax moom du geesu du tofli du ñandoo du tisey li du toob wéeru sëñ Babacar amul karasuwaal du jël kaala raxas ci kaw boppam du du du lekk ñetti yoon ci ndax bu dugalee ñaari loxoom rek génnaat na sëñ Babacar du tëdd ci kaw lal di nelaw ndax yabul yàlla Serigne Babacar du julli ñaari waxtu yu farata ci benn njàpp tisbaar damay tàngal sa télé bi takkusaan dama koy tàngalaat mu jàpp bu timis dama koy tàngalaat mu jàpp bu laa guddi ma baxal ko mu jëm jël man ma doom xamuloo ne boo amee gan goo fonk nga rayal ko mu jàll dem génn ga ñëw rayaloo ko te ku ci ne di gan ko foor nana bo ko reyalul ay sel nga kay jox bon waxtu yalla yeb ay gan yu bes lañ dañu wara yeesal ñap bo bu nit dem na amatul alañ musa ñang dabnu moy imaamu ratibu tiwaawoon mu dem dogale serigne babakar ci kanam sumi wolbe teggu serigne babakar du geesu muy dox ca day bo xaloxo xoy ya ndax du ko yor yabul yalla nuyu ko ba pare ñu jamm sant tuuti musa ñang di gesu rek bëgg xam ci kanam mënu ma xam si baw kan Abdou Karim mané ke si mën ma ñëwal nu ñaanal imam mi ndax mu delu ma ci mu ñaanal ko man nangu ca ñaan nga nu anda di dem mu daanu feeñaat ko koy yàlla nu dem romba njaataan dem ba kër per ga jibi sa nek ba ñu turne ngir dugg ak ñu seen sëñ daara ja muy ci kër ci këram ji mu nekk tey booba ay néegi ñax la fa samp mën ma sëriñ baa ngu noonuy ñëw borom daara ji moo tax ma ne sëñ Mansour ñi lay tuddee ba du tuddee borom daara ji ñëpp mun naa man a bu ko ku la ko waxati neel Babacar Si moom a ko tuddee Abdou Karim Ndiaye la ko wax mu ñëw nuyu nuyoo ba pare sëñ Mansour nuyoo moom ba pare dellu keroog nag la ñu gëj gis am ku ñu ku ñuy gis dañu changé heure lu sensé heure nag sensé nañu heure lu sensé heure ba benn bés nu ñëw ñu ngi liggéey Ndiassane en 53 mu ne naan jaar ci liggéey bi ma seet ko ndax si daaj Malick moo ma waxoon ne Babacar ma nekk si mun ma tabaxal si ma sans baa ngi ñëw nu dem yëg ci kaw étage bi di seet ni ñi liggéey ci dimanche yi ndax guddi altina rek lay dem rodu mawdo du fa dem guddi aljuma gudi, dem benen guddi guddi aljuma ci ngoon rek la fay dem mu xol xol xol ba ha ha ah, ah, ah, ligey mawdo bi jar nako ndax ñaka wo xamne ko ka ñaka saw bu ëllëgee kaw sara nga kay sangoo ji jar nako ñu oto yi ngeen di dugg di ko taf ci parabrise yi nañ ko dindi te ormal ko ku nanguwul a teg sa loxo ci parabrise su digg bëccëg muy tàng bu ci taf kayitu si ndaw kat si ndaw kat kartam googu du photo taskiratul xuwiya la soo ko yoree mooy seen carte dayra adduna ak walaaxira ormal ka seet foo ko teg nu rëbëna benn photo kuy dund te weñ du la dal du dugg sa néeg du dal ci sa mbubb te koo fi xool ku mu doon weññi suñ ka xam nga ne kooku du Babacar Sy nañ ko ormaal bu leen ko teef ci tàngana yi ci jaayukaayu tàngana yi nit du wanteer sëriñam di ko wanam njënd ba di ko def ci biir barab boo xam ne goo koy def ci oto ormal ko ci biir aj ko ci kaw bu mu nekk ci para yi te ñu wàññi ko ci carte daayira yi ku ko deful ci sa carte daayira waaye bu ko def ci carte invitation bu paree muy xotteku sëñ Babacar dañ koy ormal soxla yu téye yoo faju feebar yu bari yi tànk yi metti jabet yi carte sëñ Babacar yi ñëw fooye rek moo tax feebar bi mel ni mu ngooñ bu leen ma ree am na lu ma xam de wal wallaay wallaay ñëwuma pour wax lu reeloo leen dama leen di laye biir man ñëwuma sëñ Babacar fotom bobu ay doomam mënuñu ko wax man maa ko mën kawah wax bu ñu ko waxee ñu ne limu mu leen jura tax waye man mi nga xam moma jël ci loxo bopam tek ma ci wetam lima ma leen wax dama ko xam xamulene leen baw suñ baaw kër benn nit yëkëti wu yobuma ci loxom du goor du jigen moma xolal bopam ba woo ca ja laaj ma kuy sëriñ mané ka mbay ma wol mako ma woy mbay sall mu ñu ka ki yow lañ ko mu jox ka abdou karim ka jox mako mu fété ak man te mu dara ji looloo ma bàyyiloo daara ja ma continuer ci moom suñu waa dëkk naa du ma xam dara waaye fóoree yëpp miin nañ ko léegi fóoree ji waxoon ne du xam dara miin nga ko fu nu daje ma daaneel la nga xam ne Babacar Sy du sa morom ma wax ne bàyyi leen ko xel Cheikh Malick nee na radiyallahu taala anhu innal wasifata lil xuraayi aasimatan kasaaka axliimuha fi kulli buldaani dëgg la falaasimuha tu bu kenn way te bëgguma cambal cambal di waaxu di baagante pour waykat bu leen fi xaalis indee nan jàng yi dama bëgg ñu jàng jàng yi nit ñi jariñoo ko ku ne ñibbi sa kër wërsëg yàlla ak moom bu dul loolu kat du sotti dañuy yëg ne Maodo lii mu wax ne innal wasifata innal wasifata lil xuraay aasimatan kasaaka ak liimuha fi kulli buldaani falaasimoha tulaasikum ahibatana ñu ne ka kan mu ne safaatul Mustafa min dooni bootaani si laaj Malick moo ko wax te Maodo kat lu mu bi laaj keneen doy na kooka laaj ku mu doon Maodo ko gàggan nee wasifa buñ ko defee cib dëkk mooy ci dëkk ba ñu ne ak ñan mu ne ak ñay dem tool di ratti gàtte ya bon faraasi moo xaar nañ ko taxal ci dëkk bu ne tulaasikum ahi batana da ngeen taxoog cofeel safa atul mustafa bu ëllëgee ramoog yonent bi ngeen bokk ci te moo dana lii ma wax min dooni buxtaan yi kenn du wax na du dëgg waaye loolu Maodo wax rafet na baax na mais am na lu gën a gaaw suñ Babacar moo ko wax bul way dee suñ Babacar nee na réduire de violence ba la tajar bi saa abadan ñu ne kalu xew mu ne inal mën a la tax ma saa rit da ngay ñëw léegi léegi man Babacar Si ma xamal lu xa lu gën a gaaw kay root rek wer doxoo déglu leen bu leen waxtaan da ngeen di rëcc la de bokkuma gàmmukat yu bari xam nga lu tax fi ñoo waxee ak fi ma ñoom dañuy yër di wax man damay yëg di wax dama am kuma andal dañ ma jox kaas babacar si moma jox kaas taw man rek la ko jox ci sénégal ma naan ko bon di wax ngeen di yër di wax du nu ànd bu ko weddi de ku ko weddi bu dee na fekk de billahi ku bu rek fekk ci bu de ëpp def de si ndaw ka dane réduire de walance ba kaay nga root te tànqa te naan te yëpp sa njaboot al asba mi di tarixa seex bi di werde wi al asba moo dàq moo gën a neex werde yëpp te attention laa tat jaar bul wut keneen bul dem feneen bu ko jaxateeg leneen ñu ne lu xew mu ne inal ma ci wéy tarixa yëpp tax mii ñu leen moon tamit masaaya ci déggu Seex Ahmad Tijaan bul way de nga yëg ne taalibe taalibe ba ba muy dee na xalaat ndax ak taalibeem nangu nañu ko wala déet waaye nekk fi di wut ak cëriñ am nga retard ah da nga am rek lijaase rek nga ne sëriñ nga déedéet dañ la jox lit laax rek nga ne sëriñ nga déedéet sëriñ Babacar nee na sëriñ Babacar nee na daf koy wax mu ngi tëdd ci kaw lalam maa ngi taxaw mën ma doom billaahi mu ne ku mën tëdd nii ci talal di waxtaan ak ña ca barsax di waxtaan ak ña ca aljanna di waxtaan ak ña ca safara di waxtaan ak ña ca adduna ku ka manul boo lekkee addiye bu ëllëgee yàlla fudd sa ndigg ñi seen ndigg nar a tàlli ñoo ko bari dañ wàññi daraja yi ak xuubar xuubar bi doy na nag lu fi waay di jëndoo rek ak foo ko jële ci ci réewi Sénégal rek wala ci réewu Europe boo dellu see Tiwaawan te ngay borom xel nga am gàcc xam nga lu tax foo jàngee fu mu doon boo di ñëwee xalifa bi gàgganti la boo gagee mu gàgganti la xam nga lu tax ñeent fu ñu tëdd xaar fa yàlla taaliba bu fa sa xel dalul man faa dem siyaare ji ko sob xol rafetul ku tëdd fii Seex Xaaj Maalik ku tëdd fii Babacar Sy ku tëdd fii Xaaj Mansour ku tëdd fii Alaaji ku tëdd fii moo leen juróomeel Alaaji ca Tiwaawan boo demee Tiwaawan ba àgg xam nga noo war a mel da ngay soppi sa boppa néew néew buñ la dompee bu ko yëg te bul dompe kenn bu ñu duggee sa dàll bu bul jàmbat te bul dëgg dàllu kenn bu réeree bu ko jàmbat te bul sàcce kenn xam nga lu tax diggante réew du Babacar Sy ak réew du Seydi Hadj Malick ku koy jaabante ak kuy jaabante Safa ak Marwa ñëw nuroo ndax inna Safa wal Marwa min sha'aa'irillaahi fa man hajjal bayta aw ihtamara falaa junaaha alayhi an yatawaffa bihimaa seen diggante bokk bàggante bàggante am nga yiw waaye ñaari xutbu samaan seen xaaj Malick xutbu samaan la Babacar ci fardul la ku ci ne di xutbu samaan nga jaar seen diggante di bàggante su mil tax daal yaa ngi yaa ngi yàq sa bopp laa min xaalikin kayfal hawa bal faajaban min saalimin kayfa najaa borom way wa la wax bul yéem ko àdduna alak nan la jaar fii ba def ko ba àddina alak àddina ñeenti buntelu am yu gaaw ci alkande benn bi mooy làmbañ wu sax ciy fen nit ñi nañu bàyyi ay fen dara jaru jaru ko dara ja jaru ko nañu bàyyi fen nit du fen nit ku baax du fen benn baa ngoog de lu gaaw ca alak nit la fenn ñaareele alkande mooy bëgg daraja lu ñu la yëkkati nga xeeb ko wàccal nag wàccal wàccal wàcce jot na nag daraja baaxul xam ngeen bu ko ñetteel xeeb nitu yàlla day alag nit sëñ babakar neena man babakar kuma la doyul bu mu genn ci sa gémmañ ba nit deg ko da nga dog ca yalla ak fo meuna jokk dog nga ca yalla nana man nga ko xelat way bu ko mu genn ci biti nana da nga dog ca yalla koku du ñu du ñi du ñi babakar neena babakar neena sëñ Babacar nee na moytu leen jamono bii ñëw dana lëndëm ànd ki lënd te dana laaj ñetti làmp takk gu mat sëkk njàmbaar gu mat sëkk xel mu mat sëkk takku gi xalifa nee na mooy lu ma fekk nga ñu takk ka ci sa dënn ci gëm sa borom nga bañ ko jaawaleeg sa morom ndax kat ñàkk fayda ba jël sa moroom def boroom nga jël sa boroom def ko moroom di tiit ci sa moroom te doo tiital sa boroom di yagari yagari ngir sa morom te doo yagari yagari ngir jëm ci sa borom di toroxlul sa morom te doo toroxlul sa boroom di dégg sa ndigalee moroom nga sàggane sa ndigalee boroom di nango joxe ngir sa morom te do ngi nango joxe ngir sa borom nga jël yeg gi gëna for nga jox ko sa morom te yeg gogo do ko jox sa borom bisa ngi ñew sa borom ne tilit taru sa morom ñew futti la ba nga mel ne nen di la sang ba nga mel ne butil sang la ba nga mel ne suppame mu takk ba nga mel ne say ñox mu genn la dekk bi gas ci sa soofé borom sabaram, la sa borom nga des ak sa borom kéro nga sa borom du sa moroom te sa moroom du sa moroom wàññi leen xuubar xuubar ji doy na nag mën a ji doy na ñamu doonoon dem nañu dem nañu te doon taalibe laa ne ndax mën na gaaw a am da ngay nekk ci tarixa bi ba am juróom-ñeent fukki at boo amul sant nga yàqule xamal xamaloo luy tax da ngay naagu afala yaamana makrallaahi ilaa xawmun xaasirun yàlla kenn du ko laal du ku ñuy làmbatu du ku ñuy seeti yàlla dañ koy yëg kenn du ko làmb kenn du ko xool dañ koy yëg boo yëgul yàlla ñàkk nga wayjur dañ koy fonk ñaxal ko déggal ko dimbali ko sëriñ dañ koy ormaal yëkkati ko màggal ko déglu ko déggal ko sëñ Tuubaa ngay wax ci benn bayit fële na laa tastari dunya ñu naa àdduna waxul ala adduna de mu ne bi uxra yaa fata man ba a nuuroon bi du jaa fa sende mo daf na laa tastari dunia sa dund gaaw a jeex gii lee nga dem te waxuñu la kañ la waaye waaye bu ko jaay ak poñete tam adduna mu ñàkk fay demee bi uxra ci dund goo xam ne boo fa demee ak noo mën a mel dootoo fa jot man ba a nuurun ku jox alquran gannaaw jaay ko njëg gu néew bi du jaay jënde ko soleil fa sa ndemu boo dajak yàlla nga am gàcce inna alladina xaalu rabbuna allahu suma staxaamu te tanazzalu alayhimul malaayika ngir lan an laa taxaafu wala taxsanu wabsiru bil jannati allati kuntum tuu'adun awliyaakum fi xayaati dunya wa fil axira walakum fiha ma tastahee anfusakum gis nga alxuraan dafa ànd ak doomu aadama di ko wëlbati jamono bu ne di ko yoon wi boo ne da nga jub inna la dina xaala rabbuna laaw rek na yàllaanu moom yàlla na doyuma doyuma yaanu moom doyuma su ma staqaamoo dangay ngay jub nag jubal suñ bawkat dañ ko laaj nit ku jub nan lay mel mu ne day bàyyi fen <laughs> ñu ne que nit ku jub nan lay mel mu a du jëw nawleem ñu ne que nit ku jub nan lay mel mu a du xeeb ay bokkam ñu ne nan lay mel mu ne du yàq ay dëkkandëm ay dëkkandoom ñu ne que nit ku jub nan lay mel mu ne ku mu gis nga mu defe ne kéem a tane ci yàlla moo tax mu ne ku ne bu ñett amoon ñetta dana am ñetta am na te ñetta amul bu ñetta amoon ñetta am suñ baabu moo ko wax ku ne bu amoon ñetta dana am ñetta am na te ñetta amul bu ñetta amoon ñetta du am dafa wax ne ku ne bu yonent bi dellu soon di dund ma topp ko sa taawu baay di dund nga bañ ko topp bu yonent bi dellu soon doo ko topp ku ne bu yonent bi dellu si woon mu di dund ma topp ko sëñ Babacar ne ki toog ci place su yonent bi ci sunnam teg tànkam te teggew ko nga na doo ànd ak moom bu yonent bi dellu si woon doo ko topp ku bu sama bay dellu si woon di dund ma topp ko sa taw bay ne jot na nga bañ a doo ko topp bu sa bay dellu si woon di dund ku bu ma amoon doom ma jàngaloo ko alxuraan ndax bu ma dellu woon déggu na dinaa jàngi alxuraan yàlla jox la doom ju mën a jàng alxuraan nga bañ koo jox mu jàngi alxuraan boo dellu woon déggu na doo jàngi alxuraan bon ku ne bu ñett amoon ñett dana am léegi ñett am na te ñett amul bu ñett amoon ñett du am ma dem ah suñ Babacar ne suñ Babacar ne billaahi lu mu wax dëgg la nee na lu nekk sama xel yàlla na nekk jàmm nee mooy tolloog la xalima yi bind ca loolu ma foos bu ma ko xalaatee rek yàlla bind ko waaye kooku du nun nañ ko ormal te fonk ko te def ko sëriñ xamula ne bàyyi bàyyi maanaa ak bàyyi sul bi dañoo am différence bàyyi sul bi mooy bàyyi bi la jur jur gi rek la ca am mu dundal la ba nga doon